am nañ ci téeméer ak benn téeméer ak benn yooyu seen lim nii la tëddee fukk ak ñeent ci Rufisque juróom-ñeent ci Dakar Plateau juróom-ñaar ci Kër Massar juróom-ñeent ci Dakar Plateau juróom-ñaar ci Kër Massar ak maris juróom-benn ci Parcelles Assainies ñeent ci Ouakam Patte d'Oie ak Pikine ñett ci HLM ñaar ci Arafat Grand Dakar Guédiawaye Liberté 3 Liberté 4 Ouest Foire Point E Scat Urbam Sicap Foire ak zone B benn ci Castor Centenaire Cité Gendarmerie Cité Keur Gorgui Cité Port Derklé Dieuppeul Hann bel HLM Grand Yoff Kounoune Liberté 1 Liberté 6 Médina Ñaari Tali Waguñaay Petit Mbao Sacré-Cœur Sicap Baobab Thiaroye ak Yeumbeul ci région yi am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoo cas communautaire yi foofu tamit ci région yi seen lim ni la tëddee fukk ak ñaar ci Kaolack juróom-ñeent ci Louga ak Thiès juróom-ñett ci Saint-Louis juróom-benn ci Kébémer ñeent ci mbuur ak tuba ñett ci Ziguinchor ñaar ci Fatick Popenguine Sokone ak tàmba benn ci Bignona Daaru Musti Kaffrine Matam dina Yoro Fula Nioro ak puut ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn si malade ñi nga xam ne ñu ngi leen toppoon ci biir kër yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci lalu hôpital yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee juróom fukk ak ñaari malade ñoo nekk ci réanimation juróom benn malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ci bësu tey dalee ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñaar ak ñett ak fanweeri junni ak ñaar ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-benn ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent wér nañ ci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 dispensaire wala hôpital bu leen gën a jege bu fekkee ne yaram bi dafa sutante wala ngeen jokkoo ak seeni docteur ñi nga xam ne tamit ñàkk yi dina commencé ci fan yi néew képp ki nga xam ne yaa ngi ci nit ñi nga xam ne war nga war war nga ci jot na nga fexe ba jokkoo wala di dem ci dispensaire wala euh, hôpital bi leen gën a jege pour nga mun a jot ci ñàkku yi ni mu waree ministère la santé mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam